loolu affaire de choix la mais daal fi ñuy waxee mooy coutume la ñuy mhm. wax maanaam mhm. nit bala ngaa wëri dara wër ko mhm. ci sa biir ba pare waxuma rek ay noo casacé la ñoom ñaar nit kaa xam na cousine waxuma yooyu de mais tey jii su ko neexoon mu takki tubaab waaw surtout der bu ñuul kukku la takk xale bu rafet lool macha allah ay sa tàmbaar Aïchata Mbaye yal na leen yàlla sunu borom gën a boole yal na ñu sokkorloo mel ni asamaan ak suuf mais yal na leen yàlla léegi kan mooy doon président célibataire yi kon amul <laughs> il faut président célibataire il faut ñu Sadio Mané la woon Sadio Mané la la woon léegi il faut am yow noppi rek <laughs> yow kuula rek man borom dëj bi mën naa jooy dëj man je suis là pour <laughs> mais non dama ne mais Sadio la woon léegi il faut ñu xool keneen kum ko remplacer. man ñi ngay wax nii man après sama xel am na ci kum dem. mais loolu mën nañu wax ci leneen. Mm. tey jii boo ko doon tudd ay président célibataire du ma ko nangu ndax maa koy tànn jabar c'est pour bien. ak am na ñeneen ñu ñu ñu xam. yow jëmaay fay moo jaaxal ñëpp de. laajteel waay laajteel eh, laaj l' information est sérieuse laaj leen fu jëmay toll na ñëw na information yow laaj leen fu jëmay toll waaw dañoo bëgg a laaj leen jëmay fu toll eh, maa xam ne jëri Fall bi lay tey a bu doon ma bëgg mi ngi a fu mu toll bu disponible bu dee mën na nekk baron ah kii Serigne Gueye Serigne Gueye mu ngi foofu te avisé woon naa ko. bu amee bu dee mën nañu koo jël. Mhm. baron ñu daal koy jël. Mhm. ñu jël Serigne Gueye mu ngi foofu waxoon naa ko mu nekk dans les dispositions pour euh, mën a pour ñu mën koo jël direct. Mhm. baron si possible rek après nga wax ma léegi euh, lan la ñuy ñëwaat ci li gën a kii si internet bi wala ñu ñëw si débat bi. Sadio yàlla na ko yàlla na ko sëy bi yàlla na ko sëy bi jik jik ko ak njabootam jik soxnaam. ak ay njabootam amiin yaa rabbi juddoo ci njaboot ga barkeel barke si ak alxuraan yàlla na ko yàlla sàmm information mhm. maa ngi ko gis waaw mën a nekk nag parce que bu ñëpp a a nekk Cheikh Ndiaye gis naa ko maa ngi lay saluer de passage naa ko envoyé ci kër gi dugal na ko voilà tey loolu moo mën am frère yu mën a jàpp seen seen seen kon nag kon nag sar xool sarxolle sarxolle sarxolle sarxolle nu ko naar sarxolle naar mun kaa defee naar non mënuma ko waaw kay la ca des mbokk naar yi donc apaisement de cœur la ñuy wax parce que amoon nañu ay pincement ci xote xol. parce que amul lu ay dafa dafa sax loo xam mënta nekk sax. mënta ne moom bu yàggee am na loo xam boo ko defee nit ñi ne bëri de. day na yàlla day doon ak yabaate gu nit sax amoon nañu. matitu xol. Mhm. boo xam ne nii xam nga lu tax ñu wax ko. parce que dañ ne woon tey journée validée la. Mhm. loolu la ñu la ñu gis parce que man bi may ñëw fii gis nañu presque dix neuf ou mhm. dix huit candidats yoo xam ne dañu leen a valider tey euh, donc mu desoon Bassirou Diomaye fay gis nañu plus de cinquante minutes yu ñu def ci xool parrainage am ci caytuwaat ko euh, euh, gis nañu aussi information yi ci tukkee bokk na ci Bassirou Diomaye Faye indiwul parrainage citoyen bu sénégalais yi nekk fii mais bu diaspora la indi pour gën a leeral mbir yi xëy na tamit li mu doon ut 4000 yi du woon lu koy téye pour ñu mën ko saytu xëy na tam looloo yàggaloon saytu bi parrainage diaspora bi mu andi mais lii rek moo mën a am nee naa la jàmm ne ñooy comme ni ko Pa waxee donc su ma nee jàmm ne ñooy nag waxuñu kenn génn sénégalais mhm. talatuñu xeex talatuñu xuloo xam nga lu ñu tal mhm. nañu dem jëli carte électeur yi mhm. injustice bi metti na yabaate gi ñuy dund metti na mm-hmm. te li nga xam ne nii moom mooy ñàkk a def dëgg gi metti na ci Sénégal mm-hmm. donc nañ ci taxaw dès l'instant que ñu ngi dem ci ay élection ay veille élection lañ jëm ñu ngi jëm ci li nga xam ne nii tey jii moom mooy ci ay euh, campagne électorale mm-hmm. ñu ngi ci sax pré et campagne nañu profiter ñu toog ñi nga xam ne ñoom ñooy candidat yi mais tamit candidat yi tey jàngat bi ma ci def ci ah. vali euh, li ñu ñi ñu validé ñii bokk na ci sénégalais yi nañu ah. yeewu candidat yii ñuy validé ñuy dem <coughs> presque léegi ñu am vingt candidats ah. yoo xam ne dañuy dem élection présidentielle xamaguñ nag leneen lu ciy toftalu ndax euh, sañ nañ lu ne mhm. mais ku ci nekk na toog wax leen li mu nar Hmm. ku ci nekk na toog wax leen li mu naan xam nga ban la moo tax ma wax ko. parce que man damaa ne troisième tour la jëm ci la élections premier tour moo nekk nii. Hmm. mooy mooy mooy candidat yi ñu validé ak invalidé. Hmm. mooy premier tour bi deuxième tour mooy élection. Euh, premier tour yi xëy na dañ dem ci troisième tour ci li ñu yaakaar. xam nga lu tax loolu lu tax loolu. parce que lii nga gis nii muy muy muy euh, cim li ñuy togg nii bu baxee. xeeñ na nii nii. te li muy xeeñ xam nañ ko maanaam. régime buy préparer deuxième tour. Mm. te lu waaw lu mën a nekk la. Mm-hmm. parce que candidat yi nga gis de gauche à droite ñuy valider valider valider valider. Mm-hmm. bu yàggee nag te soo ko waxul maanaam boo waxul dëgg gi waxi naa neefere. Mm-hmm. te wax dëgg gi rek moom moo ñu war nañu wax dëgg gi. candidat yi ñu gis ñuy valider de gauche à droite am na lu ci lalu pour suba. am na lu ci lalu pour suba nañu waxante dëgg. tey nee naa la ci candidat yooyu comme nee na dañuy dem dagaani baatu askan. nguur du lu yomb. nee naa présidentiel du lu yomb. na ñu bàyyi xel candidat yi nañu wax ku ci nekk fan nga jëm ak lan nga naral a sénégalais yi. nañu xam ñan ñoo bëgg a bootu ëllëg. nañu xam ñan ñoo bëgg pare pour euh, opposition bu radical ñan ñoo pare pour nekk ci ginnaaw opposition bi. nañu xool bu baax. parce que nii nii ñu gis nii validé validé validé bi yomb parce que am na suñ benn confrère buy tooñ sax naan fi mu ne lim gisagum nii comme rido Mayiga am ñu naan. tey promo jaal <coughs> xanaa promo Ilimix moo. <laughs> moo amoon mais euh, euh, yaakaar naa ne tey kon suñu sukkandikoo suñ mënee def euh, kon ki lee di mettre El Hadj Diouf lay <coughs> téye. moom rek à je pense que ni ñoom ñëpp jàll nañ de je pense. pour l'instant Souleymane Ndéné Ndiaye ak Souleymane Ndéné Ndiaye <laughs> ñi nga ñi ñu ñi sax ngay gën a jàpp que ñi ñu validé wul. Mhm. xam nga weetee laa juf rek nga ciy kii ndax xorom saa tax ak yooyu. <laughs> gars yi nee na mënoon na neexal. candidat euh, kii la mais des Serigne Bou. Mhm. des Pape Djibril waaw Gakou. validé na des des des Wardini. nañu wax ñoom fan la ñu jëm. Anta Babacar Ngom ñoom <laughs> biyeete moo njëkk a validé mais moom aussi tam ñu bëri ñu ngi doon wax ne xam nga euh, ak suñ gisee suñu yaay ji ay Mbodj validé wul matalul sax euh, te ñu gis nañ ko yàgg ci politique la. mais mais loolu day indi problème mu fichier bi parce que loolu ba léegi waxaguñ ci ah am na ñu bëri ñu ci. mais fiche de parrainage euh, fiche ñu jël nii. waaw Mary Teuw dañ ko joxoon fiche am mu dem remplir parrainage am ñu ñëw ñu ne ko yow ci sa bopp en tant que candidat te du moom kese de bari na am na benn candidat bu nekk am foofu ko rek Mariso ñaar ñu ne ko bokkoo ci bokkoo ci ci bi bokkoo ci sa tur newu ci existé moo doy waar euh, man am naa sama benn tonton rek ci local yi voté na et tout ça man da ay dama ko doon mujj di mbalak sax ma ne ko yow ba ngay voté juddooguma depuis tout le temps yaa ngi voté ba ci bu mujj bi Euh, dafa parrainé benn politique euh, dafa parrainé kenn après bon ñu ne ko. kii nekkul ci fichier yi se grave lii daal dama ne bu dul ak maa tay ne ci ginnaaw farce nekkul ci ginnaaw bëgg a def lu leen saf nekkul ci ginnaaw xaw ma lu ci ne. Mm-hmm. man moom mun xaw doo xam noo koy qualifié vraiment. Mm-hmm. doo ko xam lool lool noo koy qualifié doo ko xam. lool lool loo fi indi laa xamul man sa gàttaay. dama ne naqar ayca ñu dem <laughs> ma <laughs> dugg na. <laughs> barka nag coro mere na leen. barka coro mere na leen nee na la loo fi wut. ah barka dafa gëj a ñëw di gën wuube sax. utu fi dara demal nga toog demal ah, eh, ñu si ñu si bëri di si wax. mais tamit eh, am na mën nañ ko waxee ironie du sort ah am na si ñenn ñoo xam ñu si mel ni Mimi Touré ku si mel ni eh, ñoom ñi nga xam ne nii ñoo fesoon wala ay bun Abdallah di wax fichier beeg yu ni mel bay wax sax ci conseil constitutionnel constitutionnel sage yeeg lu ni mel ñu gis ne nag ñoom ñoom daan nañ ko defaan bi yoon nag ñoom ñu ngi ŋàññi lu ni mel naan fichier beeg ak la ca jëm yow naka nga ko gisee. waaw am na j'avoue que. Mhm. sunu xarit bi sunu yaay Aminata Touré gis na ma que conseil moom ak euh, Aly Ngouille Ndiaye. j'étais très triste attristé par l'image mhm. maa ngi koy wax sànq Coro. Mhm. j'étais attristé parce que dama ne si xoolal àdduna. j'étais triste. triste même. j'ai dit ma xool Aliou Ngouille Ndiaye muy dox topp sunu yaay bi ma naan waa lii la mu doon. mu ne di koyam koyami te démb.